combat bi man ak yi Yekini incha allahu rabi war a am fee sa nationale maa ngi woo àdduna di woo Sénégal yëpp waaw di woo waa parcelle 1 ba 26 si komba bi ñu jàpp si ñëw taxaw seen doom incha allahu bi diwoo woo nag suma mbokku séeréer yi di woo suma mbokku séeréer yi di woo waa Diofior di woo waa parcelle 1 ba 26 di képp kuy bëgge Ibou Ndiaye képp kuy fan si Ibou Ndiaye maa ngi koy woo si combat bi mu ñëw jàpp si. waaw di woo suma mbokku séeréer yi yëpp bàyyiwuma kenn képp kuy séeréer suma mbokku séeréer yi partout dans le monde maa ngi leen di woo si combat bi di leen ñaan ñu ñaanal ñu suñu combat bi ñii ñu jëm le 10 octobre incha allahu rabi bi di ñëw ñoo ngi ñaan ñu ñaanal ñu suñu borom defaral ñu sutura defaral ñu ndam parce que yàlla moom moom ndam ñoo ngi si ñoo ngi ñaan suñu borom suturaal ñu bu dimanche yi incha allahu rabi waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo suma mbokku séeréer yi di woo waa région de Fatick. di woo waa Diofior waaw xoyaa fogoɓe Diofior xoyaa fogoɓe séeréer maxey gidma séeréer we tout xoya den combani maxey ke na jeg kaaga octobre mi fu papier kini mana na arène national mais xoya séeréer we fop de ngara ndamtaam combat neke xoya Diofior o fo xa ɓiy den inchallahu rabi dimanche i mbuga i tourner anga i nga fog in fog in i tourner anga i dara refa ngeer na o pogum to i miña ñoxorona drapeau le séeréer con, combate.